الغبار في ظلال من الفيض كأس من كؤوس المشارب أعوذ بالله من الsheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu ci ndigalu Serigne Mbaye Sy Mansour xalif général des Tidianes yàlla na fi yàgg lool te wér El Hadj Maodo Malick si ak mboolem njabootuk El Hadj Malick si radiyallahu anhu njabootuk Serigne Abdoulahi Sow El Hadj Amadou Moustapha muy xalifa kër gi Adja Ndeye Sow Adja Roqoya Sow El Hadj Massar Sarr président national des daïra ñoo am mbégte di leen yëgal waaye di leen woo ci seen gàmmu gi ñuy amal at mu jot gàmmu goog nag ñi koy amal di ñan daïra El Hadj Abdoulahi mu war a doon kañ le samedi 20 avril 2019 ca Dagana ka ko fas yéene jàng nag di El Hadj Abdou Aziz Mbaye ca 23 heures dinañ amal départ bu mag ca Dakar ñoo nag fanaan fi nga xam ne nii moo di Saint-Louis le vendredi 19 7 heures gannaaw bu ñu ndekkee nag foofee ca Saint-Louis ci la ñuy dem fële ca Dagana ngir nag dundal bis boobu le samedi di bisub gàmmo gi 8 heures 30 lañ ko fas yéene tàmbali ak ay ziar ci kër El Hadj Abdoulaye waaye ak njàngum alxuraanul karim 17 heures 30 ñu amal cérémonie officielle bi dalal gan ñi ngoon gi nag ci la ñu def li nga xam ne nii moo di gàmmo gi dimanche 21 ci la daal di dellu Dakar kon bis baa ngi noonu di bisub gàmmo annuel boo xam ne nii daayira national yu El Hadj Abdoulaye Sow ñoo koy amal at mu jot di gàmm gu mag mu war doon kañ le samedi 20 avril 2019 ca Dagana ci woo mboolem jullit yi nga xam ne nii ñoom lañ bokkal Sénégal bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu minka kawnuka qaidi wa kawnuka mifqai wa kawnuka hajibi لك الله لا عرفا بأهلك ناقدا ولا فاسخا بيعا بأقضي واجبي وما الشيخ إلا من تلوذ وتهتدي به ذو شفاء أمراض قلب المصاحب